لله رب الذي قد عاد لي بهدى كل قديم لمن نقدمه ورحمة الله تعالى وبركاته بك جلتي بك تعليبي جنابي نسانت يالله جلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم ñoo ngi nuyuwaat képp koo xam ne rek yaa ngi suñu di Serigne Muntaka ibnu Serigne Basiru mu yàgg fii lool te ànd ak wér waaye di lo ki nga xam ne Serigne Xaadim loo Gaydel ibnu Serigne Moustapha lo moo isa borom Baxdaat yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér di amaat mbégte lool ñëw di leen yëgal bés bu mag bés bi nga xam ndigal laa ngi bàyyikoo ca Touba ki Serigne Muntaka muy màggal gi nga xam des koy màggal alquran ak xasiida ak muy kan ajjuma le 24 mai Serigne baa ngi koo xam ne yaa ngi dëkk Thiès ak li ko wër ngir ñu fas yéenee màggal ndigalu Serigne Mountakha boobu ci bis boobu nga xam ne mooy le 24 mai fas yéene koy amalee fii ki Touba Baxdaad kër Serigne Khadim Lo Guédiel Serigne baa ci woo mbooleem koo xam ne alquran nga yor te nekk li wër Baxdaad mbaa biir Thiès loolu mboolem koo xam ne yaa ngi yor kuréelu xasida Serigne baa ngi la ciy woo mboolem jàngkati xasida yi ragal si Serigne baa ngi ci Serigne ci rek yaa ngi wax ashhadu la laa illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah serigne bang lay wo ci bis bu tawfiq bi nga xamni ki ñu ko xewale moy serigne muntaka bis ba ngi non nak programme bi dana tambali 10 heures ci njangum alquran dem ba tisbar gannaaw tisbar bi lañuy tambali kurelu khassida yi ak ragasi mu dem ba timis insha allah rabbi gannaaw timis gi nak lañuy tambali sikurla bi mu jëm ba 22 heures ni la programme bi di ñaan ñepp rek ñu wajal ko te fas yéene xéewal gi ñu ko sëñ Muntaxa yéene ñun ñëpp ñu fas yéene ko barkeeloo kon ñoo ngi ci woowaat mbokki taaliba yëpp di ci woowaat andu jàmm yëpp di ci woowaat waa Thiès yëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu لم يزل زمانا على غراب جليل مالك أحد بر الذي 你走，走吧。